waaw euh, comme ni nga ko waxee euh, defe naa question mooy lu ma xalaat si joueur ñoom Crépin ak euh, Santy Ngom malheureusement musuma musuma entraîné ak ñoom musuma joué ak ñoom mais si lu ma xam si joueur yooyu ay ay joueurs yu mag lañ waaw que tey bu ñu demee bay ñëw si équipe nationale bi ça veut dire que ni am nañ fi seen place te coach bi supervise na leen xool na leen bu baax xam nañ ni mën nañu apporter quelque dara ci équipe bi Euh, Krépin jot naa seetaan ay quelques matchs am malheureusement senti euh, à part match Sénégal bi mu footballoon euh, la fois dernière mais dama gaañu woon mais voilà xam gëm naa ñoom dañ indi dara si si bi bu ñu permettre ñu ñu football match bi ni mu war ni mu ko waree te te gagné ko. non mënul doon match doxantu parce que dañu bàyyi suñu club yi ñëw ba fii pour pour doxantu bu ñëwee fii c'est pour ñu gagné match bi. comme nous l'avons dit, surtout Begel Sunyuab, Begel Waches, Begel Sunyuab, nous en tant que joueurs Nous avons massé de Yom parce que nous avons une vie pour des résultats bas, mais nous avons fini la qualification. Nous avons fait comme euh, mieux que l'année euh, passé mais bon, nous euh, avons gagné 5 matchs 6 6 lu baax la une, confiance préparation mais sur sûr que